hey lii rouge bordeaux la wala rouge dansé Boy Niang changé na boo Niang changé na déguisement yor lu mel ni benn teeñ ca loxo ba di ca xool tafaatin gis nga lu mel ni benn teeñ la yor papa jala taxawal dégol ma nga koy sotti benn saafara cey làmb waaw waaw lamba ngi noonu Mansour jël na teeñ ba teg ci digg bopp ba ñu jël saafara ci sotti ca digg ba mbubb ba am na ay xaatim ca gannaaw ma ngay wax ak soose maane am na lu ñu wax ñoom ñaar bo reetaan oh ay waay boo ñaar cokkas na cokkas ndiku waat daal di wëndeelu oh nee na heure bi jot na Mansour booy ñaar nee na heure bi jot na sama xel dem ci Mohamed Ndaw Tyson nii la ko doon defee gars yi Boy Niang nee na heure bi jot na waaw waaw Boy Niang dikk na tey ngeen de waaw waaw ma ngay def ay mouvement ma ngay def ay échauffement di gën a tàngal yaram ya nag Père de la àndal Mansour. mais Mbaye ani Père Bourkhane per burxaan nag xam nga ca biti la ca biti la yem xam nga làmb Mansour dafa doon wàllub teen lu coow li bari bari bari ñi ëpp ci ñëpp ci pind bi la ñuy taxaw. ah mbay loolu xam nga si làmb nag tey xam naa ko. làmb gi noonu. tey làmb. des na tuuti daf booy ñaa ñi mu àndal ñëpp dañuy génn des na tuuti dafaatin ñi mu ñëpp dañuy génn ñoom ñaar kese ci biir géew bi lu waay mën jëflanteeg sa moroom loolu ci kanam tuuti lay doon. fii ci Leewtoo TV ca Mansour Boy Niang ngi noonu di ñëw ma booy Niang fan la jëm Boy Niang fan la jëm ma nga yor benn saaru lekkat bu ndaw maa nga yor benn lekkat bu ndaw ñu sottil ko ca ndox mu sotte ko ñu sottiwaat ndox mu sotte koo waat say làmb ma ngay sangoo lekkat ga waaw waaw sotti nañ ko ci ndox ñetti yoon mu sotte kooko jël leket ga teg ci suuf dóor ca tànk ba mu toj jël la des sa butéel ba sotte kooko waaw waaw Mansour ne woon nga ma gis naa fi ay sekki dangaa gis sekki ci làmb ji. bala Gaye Modou Lo jekki waa na de sekki. Balla Gaye Modou Lo da ngaa gisoon sekki. gisoon naa sekki dix ya. tey da ngaa gisaat sekki. dix litres da nga ko déclaré wat ci làmb ji. tey gisaat nga sekki. waaw. ah Mansour a wax loolu jëlal ma Tapha Tine ay waay Tapha. leket la teg ca digg bopp ba waaw waaw ma ngay njaab di ñëw ma ngay dégaase di ñëw summeeku na ba dese li nga xamante ne bii mooy tubay blouson bi samp na bee jënd kooba ba jël leket ga teg ca kaw bopp ba jël morso bu wet bu wert rango waaw waaw am na la muy am na lu muy wax ak waa ji waaw waaw cey Moustapha cey am di Moustapha gis naa ko mu yor genn ngomb di ñaan waaw mooy ngomb kànnaar ñii da ñii dañu naan ngomb ñi naan kànnaar waaw ñaan na ba pare ma ngay bës day tëj lan lay wax aa ah, damal nga laaj ko ko Mansour ñaan na ba pare tëj ñu joxaat ko waa ji mu àndaloon waa ji dugalaat ko ca mbuus ma lëmas ba mu dëgër téye ca loxo càmmoñ ba waaw waaw cey Mansour ka mu àndal yor na benn yet Boy Niang koy rombaasu Boy Niang ngi ñoom ñaar jàkkaarloo nan zéro zéro seen diggante ñoom ñaar bataille psychologique bataille psychologique cey mañ cey lii lamba ngi noonu tafaatin reena booy ñaa daw daf benn samet dal di cokkos ndiku eey mbay am di Moustapha ngi noonu jël na butéelu saafara ba sotte ko muy wàcc cey mañ cey Moustapha le géant di Bawol borom saakaande borom taq ci rip waaw waaw gis naa ci moom engagement gis ci moom détermination wante gis naa ci moom dal cey am di Moustapha arbitre nee na leen heure bi jot na doy na ca Mansour jëlal loolu hey ñaari mbër yi Tapha Tine Boy Niang ngay wër ñëw bay romb Tapha Tine am na lu fa xew waaw waaw Tapha Boy Niang nee na leen bàyyi leen mu sedd waaw waaw oh coy am di Moustapha moom tamit cokkos ndiku na eh eh daf demi flexion sëgg sëgg jógaat cey ji lamb ci suuf jël loxo ba dóor ci dënn bi ne fii maa fi ne waaw naa loolu ci mbër mbër da ngay kañu mbër da jaaju mbër da ngay yëg sa bopp cey am di Moustapha waaye combat bi yërëm naa ku daanu laa yërëm mbay ba man ki daanu laa yërëm Mansour mbay fan lañ koy waxee ku daanu ku daanu foo jëm ah, laaj naa la ko daanu foo laaj naa la ko may yow daanu nooy jaar laaj naa la looloo jaaxal ñëpp waaye nag bëre ñaari ndamay dugg wante benn ay génn waaw loolu la machine nul moom ak défaite sans verdict ah, na bëre bi na làmb ji jeexee ci bëre ku sa ku mën sa morom daan te damaa bëgg arro liggéeyun Babacar arro ah loolu ci kanam lay feeñ summi na tani bu rouge bordeaux ba sol benn faaru mbaam bu weex bu ñu xaatim faaru mbaam mooy yére ba nga xamante ne bii mboq yi fi ñaari ñaari ñaari trait rek lay am fo mboq yi côté yi côté yi du am dara zaaru xar sànni lay doon. ah mboq mboq mboq mboq. luy mboq. mooy wet yi. puqutaan bi li li ci puqutaan bi ba ci suuf du am dara. loolu loolu mooy faaru mbaam loolu la Boy Niang sol fi mu toll nii ñu bind ko ay xaatim ba mu fees cëy lii cëy làmb Boy am na lu mu yor di ca xool Tapha Tine ma nga ca yurndu Tapha Tine xool na ci joxaat na ko ki nga xamante bi bii muy mooy Xaddaafi wala keedu Xaddaafi eh Boy Niang ña nga koy takkal benn téere ca tànku ca tànku càmmoñ ba ci làmb ji fi mu toll nii ci préparation mystique la ñu toll dafa yor na benn pitax sànni na ko pitax ba dem na yoonam pitax baa ngay dem eh, eh. ba dem na ñëwaat eh pitax ba dem na ñëwaat jëlal ma pitax bi Mansour Mansour jëlal ma pitax bi. ma ngay sànni picc ya picc yaa ngay naawu Tapha Tine ngay bàyyi picc ya ñuy dem keesu picc la yor Badiane Awa Tapha keesu picc la yor di yelo picc yi picc yi naaw par benn arène baa ngi mel ni arène baa ngi mel ni àllu picc oh cey làmb moo bari tegtal lu nekk lan lay defloo lépp ci Leewtoo TV lay xewe Mansour ayca Mansour ma ngay baax mi ngi tolloo ayca ñu doxal kon Moustapha Tine jox nañ ko saafara wala jox nañ ko sunguf mu diwoo jël bejj nu kooba ba daal di cokk cokk ma ngay def ay échauffement yu ndaw boo ñaa ànd ak moom tey ñoom ñaar ay Mansour lii kenn du ko lijjanti tey waaw waaw ay waay kenn du ko lijjanti ci kanam tuuti rek wante jamono bii ñu toll du neex a lijjanti ndax ñoom ñaar ku ci nekk ngi andi confiance arbitre baa ngi leen di woo Assane Assane jël na benn paan sotti na ko rakk ja oh mbokk ndeya koy jur cey Assane Mansour Assane ab seex la wala. ah ah ah Mbaye man mbay xaw ma nag doo ma de. ah kon leeru la. leeru ma de. kon maa ko yow ci bokk yem. leen daa xam naa ko. deretam la deretam la. ñoom ñaar ay mbokk lañu. ay mbokk lañu na beneen butéel sotti ko Boy Niang. ku ci nekk ñaar nga dese ci géew bi fu mu toll nii. mais Mbaye tey gars yi ñu yàq si bitee bëri de. ay waay li ñu yàq tey tey waa S2 mere nan leen. waa seen o est-ce que ndoxu seen o la. ay fii ba ndox nga fi utilise bu dul ndoxu seen o laaj naa la ko. moo ma jaaxal nag da ngaa bëgg ma publicité waaye du ma ko def. nga jàgg dem làmb wala ma lay laaj. Ah non lii ah, man daal gis naa ñuy tuuroo yu buteelu ndox. arbitre baa ngi leen di woo Moustapha ngay ñaan. ndox day weex mais ndox weex la baaxoo wante buñ ci defee leneen rek mooy tax mu changé a ah, loolu nag ay mbir lay doon ñoom ñoo xam lañ cay def. cey Moustapha cey Boy Niang am na lu ko Boy Niang di wax de guux na ndox buusu ko guuxaat buusu ko guuxaat buusu ko ba muy ñetti yoon eh andil nañu booy ñaa andil nu booy ñaa ak xanc xanc la Mansour loolooy xanc da ciy dugg génn lu nekkoon ci moom daal di dañ gis nga noonu dugg na benn yoon duggaat ñaari yoon daal di génn ma nga noona waaw dugg na ñaari yoon génn troisième fois baa ngi noonu waaw mi ngi noonu cëy booy dugg na ñetti yoon génn loolu sëriñ la koy jox fan la dugg fan la dugg laay laajte la dugg waaw ah, loolu bu làmb ji jeexee bu demee këram danañu ko wax xoolal layu ba Mansour béjjén la ñu def ca biir man nga koy tàllal tafaatin Tapha ngay cokkos ndiku ey ey Amdy Moustapha ngay cokkos ndiku Boy Niang upp na ko layu ba boole kook di ñaan lan lay ñaan noonu Mansour Tapha Tine nga noonu yor beñu koo ba ci loxo ndeyjoor ba samp na ko gis naa mu takk lu mel ni lu orange ca loxo ndeyjoor Mansour jëlal malikaan ba ay Tapha Tine tàllal na ab malikaan mook Socé Mané ko tàllal sey lii am na ku ñuy woo mu yor lu mel ni benn siwo Tapha Tine tegoo na li nga xamante ne mooy malikaan bi sey loolu ña nga ko koy muur oh ngay sotte sotte koo saafara ba sotte koo na ndox ma mu wàcc maa Tapha Tine mi ma gis nuru na ma ko bëgg combat wante cey booy Niang le fils de Dogol moom tamit ku bëgg combat bi la ñoom ñaar daal def nañu li ñu war a def ba le jour ji ay minutes yu néew moo ci des ñoom ñaar ñu jëflante. bay bëgg naa ko dugal ma si palmarès su Boy Niang ak Tapha Tine. waaw jërëjëf Mansour xam nga ne Tapha takku san bu nekk bëre na ko ci làmb ji ndax Tapha Tine bëre na ak Yékini Junior ñaari yoon daan ko bëre na Jos. bëreg ama neex bëreg guy gi bëreg Balla Gaye numéro 2 wante tàkkusaan baak tàkkusaanam baak Bombardier ba léegi kenn du ko fàtte heure bu tafaat heure bu Bombardier ñëwee rek mu door ko ne ko delluwaatal ca ardo wante bëre naa ki nga xam ne mooy Elton bëre naa ki nga xamante ne bii mooy Cek Tapha Tine bëre naag Bazooka bëreeg Abdou Diouf bëreeg Boy Sey bëyeeg bëreeg Lac de Guiers numéro 2 bëreeg Issa Pouye bëreeg El Hadj Diouf Gaynde bëreeg Sa Kajoor numéro 2 ak Malaw Seras ooy kooku mooy Tapha Tine le di Bawol ma nga noona mbokk booy ñaa ña nga ànd di cokkas ña nga ànd di lagg waaw waaw cey bii combat est-ce que lii dana neex li jënti Mansour wante su ma la ñëwalee ci Boy Niang càppaacoli ji fils de borom bu jeexee rek jeex na borom banal fondeli te nee na ku nekk sa koppa ngi ci kopp sa koppa ngi ci biir Boy Niang bëre naag Mamadi Diouf bëre naag Batista bëre ak Akon bëre ak Mbis bëre ak Brise de Mer bëre ak Pape bërëg dolf ak saa kajoor numéro 2 bërëg Baye Mandione wante bëre na ak Garga bërëg guy gi ak saa Thiès laa ilaaha illallah wante bëre na ak a neex ak Jos kenn du Boy Niang numéro 2. bay Tafatine ñaari defet la am. Tafatine suñu xoolee ay defetam 3 la defe naa. kan moo ko daan. Tafatine ki ko daan mooy Ama Baldé. ak ki nga xamante ne bii mooy Lac de Guiers numéro ak kan. ak ki nga xamante ne bii mooy Balla Gaye numéro 2. kon Mbaye Bakar kon Tapha Tine ñetti défaite la am. na trois défaite. Boña. Boña suma juumut am na ñaari défaite. kan ak ko daan. ama neex daan na ko. ak kan. ak nga xamante ne bii mooy Jos. Jos ak daan am na trois defet ak Lac de ak Lac de Guiers bii nga xamante ne bii. dañoo bëre fii ci arène national ñu yëkkati loxo Boy Niang Boy Niang ñibbi bu këram ñu fu xarti ndam li jox ko ki nga xamante ne bii mooy Lac de Guiers ñoom ñaar ku ci nekk am nga trois défaites ba pare am ay adversaire commun nag maanaam dañoo am adversaire yi nga xamante ne bii ku ci nekk da ngaa dajeeg moom ndax booy xool Tapha Tine daje na ak Zoss Boy Niang daje na ak Zoss booy xool Lac de Guiers daje daje naag Tafatine Boy Niang daje naag Tafatine. cey bi combat cey bi combat. Tafatine daje naag Jos Boy Niang daje naag Jos. waaw waaw xool gis nga ngay gis drone ba ma nga ñuy wër cey kor mari kenn du moom sama téléphone ba fay na loo xam. Ah, xanaa nga xaar rek bis bee ko laaj. Mansour arbitre baa ngi leen di woo ca biir géew ba Tapha am na lu muy wax Boy Niang am na lu muy wax tey le 19 décembre per Bourkhane ñëw na nee na ko jëlal fi benn per jox na ko kurus ne ko ñaanal sa soxla oh loolu lan la ay Mansour man bëgguma loolu de eh loolu lan bay ah. <laughs> lan la laaj ñaala ko ah na lamp yi takk na lamp yi takk waru moo géet na lamp yi takk Boy Niang ngay def ay mouvement yëkkati na ay supporter kañu na jaaju na ma ngay njaab Mansour cey xolal Boy Niang la muy njaab ma ngay njaab waaw waaw ambiance ci la bokk géwél yaa ngay woy di tëgg mbër yaa ngi waaj a bëre caméraman yaa ngi filmer reporter yaa ngi reporter nga ne ñaata mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV dimanche le 19 décembre 2021 liñ doon xaar ci ay at doon ko xaar ci ay weer doon ko xaar ci ay bis léegi wura wa dem na këng waxi mag dem na ndañ tàlli lu waay doon jaay léegi mu lamb arbitre ba woon na leen ci biir géew bi diggante Tapha ak Boy Niang arbitre baa ngi leen di laaj ndax pare nañu soufflé na génn seen diggante ñoom ñaar vingt heures passé de quarante quatre minutes Leewtoo TV ngeen di seetaan Mansour le Benjamin des caméramans nee naa la yaa fi mën yaa fi ne boo Niang mi ngi jiital tànku ndeyjoor Tapha Tine jiital tànku càmmoñ acca Boy Niang cokkaas na boo Niang cokkaas na Tapha Tine dire ko topp ko Boy Niang wàcc na booy Niang wàcc na day dem wala lan la fan lan lay def Boy ñaa wàcc na ci tànkam Mansour lewaatoo ga gaaw na jege wantoo nañu ñoom ñaar cey bii combat super étoile foofu ci États-Unis d'Amérique sama doomu ndey maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar di la bàyyi xel di la ñaanal jàmm fa nga nekk diggante Tapha Tine ak Boy Niang ña ngay foqante baaram bàyyante waat nañu ña nga jëm ca wetu saaku ya Tapha Tine a ngi diri sa combat bi Mansour Tapha ngi diri sa combat bi Boy Niang nga jëm ca wetu saako ya Tapha cokkaas na mais dalul Tapha dóor na mais dalul diggante Tapha ak Boy Niang lan doon waxante ca signature de contrat ya lan doon waxante ca fees to face ya fàttewuma ci dara jafee leen ko libéré supporters yi libéré amateurs yi ñëpp ñibbi ci jàmm ak salaam waaw Tapha Boy ñaa cokkaas na Tapha tàllal loxo ba Tapha tàllal loxo ba ñoom ñaar jege wantoon nañu Mansour fi mu toll nii ku dem mën ngaa laal sa mën ngaa mën ngaa sa morom Tapha Tine ak Boy Niang Tapha Tine a ngi direeku topp Boy Niang Boy Niang sëgg na léegi miime esquive daal di siggiwaat Tapha boo ñaa Niang dagg na lewaatoo gi def déplacement taxawaat dimanche le 19 décembre 2021 ak Leewtoo TV ak Leewtoo production Pape Thialis Faye kenn du moom ñoo ngay foqantey baaram ca kaw acca Tapha Tine jàpp na loxo ba boo Niang fipp mu bàyyi stade ba yuuxu nañu Mansour ña nga ca wetu saaku ya ña nga ca wetu saaku ya Tapha Tine siggi na léegi Tapha Tine siggi na Boy Niang siggi na attention Boy Niang cokkaasaat na Tapha Tine dóor i Tine rebis na mais dalul ña ngay baaram Boy Niang Boy na ku ay ca jàppante nañu Tapha Tine kor na Boy Niang boole ko loxo ba attention hey la ilaha illallah Tapha Tine kor na Boy Niang di Tapha Tine kor Boy Niang génn daw génn saako yi a am Mansour loo gis avertissement pour Boy Niang waaw waaw koo kor di waaj a dóor mu reculer génn saako yi arbitre soufflé arbitre woote waat na génn seen diggante soufflé daa mel ni Boy Niang bëggul kor bi ah Mansour Mansour mënta wax. waaye ba ma concentré wu may liggéey. laa ilaaha illallah cey bi combat Tapha Tine a ngay dire ko di ko ñaa Boy koy xool ci biiri bët lan la bëgg ñoom ñaar ña ngay jàngante Tapha Tine mooy diriger ko acca attention Boy Niang door na ko ku ku gauche ku gauche door léegi mais dalul attention Boy Niang dooraat na Boy Niang dooraat na Boy ñaa dooraat na léegi ma ngay miime di waaj a dem mais demul Moussa fay ca Brésil nuyu naa la sama jigéen bi nat faal fële ca États-Unis yaayu Papek Dior séri grand Modou Fall maa ngi lay ziar attention eh Tapha Tine Boy Niang cokkaasaat na Boy Niang gi cokkaas di def ay déplacement Boy Niang bi combat du neex a lijjanti de lii. Mbaye Leewtoo production tëgg nañ combat bu neex. tëgg nañ combat bu rëy. combat dal la ne. attention. na coup gauche léegi mais dalul. hey Mansour. attention. daje nañu. waaye ba am nga benn wax boo wax. runkum daje. runkum daje mooy. roofoo ku ci nekk dugal sa loxo wuti sa ngem morom ay ca boo ñaa dugalaat na coup boo ñaa coup gauche lay dugal armée droite dugal na gauche droite boo ñaa dugal na gauche droite attention yooru na yooru na mais agul ti bu suuf di woo boo ñaa dafa yooru léegi dafa tin reculer dafa tin dooraat na mais dalul moom tamit ñoom ñaar ña ca wetu saaku ya boo ñaa ngay seere làpp tàkke ga combat day jeex bu ñu jàppante war naa mën a jeex attention Boy Niang taf génn na saaku yi hey hey Mbaye hey Mansour hey Boy Niang hey Tapha Tine mais lamb bi jeex avertissement Boy Niang mbaa amaat avertissement day jëlaat ñaari avertissement Boy Niang jëlaat na deuxième avertissement arbitre sifflé waat na Tapha Tine wàcc. sëg Boy daa war a éviter ñu koy dàq. waaw mais Boy Niang noonu lay bëree loolu la bëgg ku ko dàq la bëgg. mais avertissement bu ko jëlee annoncé ko ci làmb bi. bu jëlee ñeenti avertissement dañuy commencé dagg xaalisam. ñeent ñeent wala trois. ak lu mu ci mën di doon daal avertissement baaxul ci mbër Boy Niang dugal na coup gauche droite. Tapha Tine dire ku topp ko dugalaat na coup. Boy Niang xeexu benn benn lay xeex fi mu toll nii. ko consigne lay bëree attention xeex ak suut dafa neexul Tapha ak booy ñaa Tapha moo diri sa combat bi cokkaas na attention booy Tapha Boy Niang daw na yooru ñoom ñaar daje nañu Tapha jàpp na Boy Niang jàpp na ku nekk am nga sa loxo sa ngem bu moroom Boy Niang benn loxoom Boy ñaa boo Niang Boy Niang ci Boy ci sengoor yi la jàpp day génn day génn waaw génn na fa jàpp ba baaxul moo tax mu génn jàpp ba baaxul moo tax mu génn. mbay lamb gi ñoom lii mbay Babacar. amateur yi dañoo war a kontan kontaan yi. sama xel dem ci góorandoo yi le président des jeunes amateurs. tey lan lay wax bu fi amoon sax mu neex. non day àgg day àgg attention attention Tapha Corner ay épirkil boo ñaa génn la ilaha illallah cey lamb cey tafaatin booy ñaa cey tafaatin booy ñaa combat baa ngi bëgg bëre nañu presque sept minutes attention tafaatin génnaat booy ñaa génnaat na booy na booy ñaa mbaadu pexem daa bëgg a jeex ah dañu xool si kanam. du jëlaat avertissement. day jëlaat troisième avertissement. Boy ñaa jël na trois avertissement fi mu toll nii lamb ji day jeex Boy Niang day taxaw bëre mbaa ñu dagg xaalisam. laa ilaaha illallah public baa ngay yuuxu Tapha booy Boy Niang dimanche le 19 décembre 2021 arène nationale ak Leewtoo production fii ci Leewtoo TV attention Mansour Boy ñaa door na coup bu dal hey. waaw waaw Tapha jàpp booy Niang moytu ko mu terter yi ñëw taxawaat diggante Tapha Tine ak Boy Niang diggante Tapha Tine ak Boy Niang attention foqante nañuy baaram ca kaw foqate nañu baaram ca kaw attention Tapha Tine do Boy Niang door na Boy Niang door na Boy Niang door na attention Boy na Boy Niang xeex bi la xeex bi la bëgg Tapha door na moom tamit Tapha door na coup coup gauche enchaîné deux coups gauche attention attention daw nañu daje Mansour daw nañu daje Boy Niang ngay rentré Tapha Tine na ko Boy Niang jàppul Boy Niang jàppul attention kaas ba dafa diis hey caxabal ba dafa sori caxabal ba dafa sori waaw waaw boo Niang tante na Tapha Tine ngay dóor Tapha daa bëgg a dóor mais boo ñaa loolu la ko xañ Mansour combat bi war naa mën a jeexe fii combat bi war naa mën a jeexe fii attention amateur yëpp a jóg taxaw fi mu toll nii hey boo ñaa ngi koy tuur mais Tapha dafa diis poids ba Tapha Dóor la bëgg de Tapha Dóor la bëgg de mais booy ñaa ndaanaan la ba nga xamante ne bii Dóor ko yombul booy ñaa jàpp na ñaari loxoom ci devantiru ngemb Tapha Tine attention attention booy ñaa daa bëgg a dugal bopp bi rentré ko ba Tapha Tine siggi mu taf ko bu ko tafee da koy caxabal. loolu la bëgg mais Tapha Tine loolu la xam tamit day bañ Tapha booy ñaa Niang Boy Niang na booy Niang ndengeñ na booy Niang ndengeñ na di dóor attention Boy Niang Tapha Boy Niang tafaatin Tine Tapha ngi Tapha ngi ci suuf Boy ñaa ngi jàpp la ilaha illallah xanaa lii xanaa lii kay suñu appareil bi ñemewu ko lii maa ngay seen per dogal ca gannaaw Tapha Tine Boy Niang Tapha Tine jàppante baa ngi bëgg a yàgg Boy Niang ngi ndengeñ ah waaw attention hey hey jàppante bi ay ca Mansour Tapha Tine Boy am na quatre avertissement Boy am na quatre